Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal, les titres de cette édition. Nous commençons par le marché qui sera très bien approvisionné à moutons, euh, plus que l'année dernière. Ces assurances sont du ministre de l'Élevage et des Productions Animales. Une déclaration faite lors de la célébration de la Journée mondiale du lait. Ali Saleh Diop en a profité pour revenir sur l'insuffisance euh, de ce produit au pays. Nous y reviendrons. La population de la commune de Mban euh, qui crie à une tentative de spoliation euh, d'une assiette foncière de 1700 hectares par le projet, euh, par le projet donc 1700 hectares. Des collectifs se forment dans les villages impactés en conférence de presse. Il interpelle le chef de l'État, Macky Sall. Décès des 11 bébés au service de néonatologie de l'hôpital Mam Abdul Azizi Dabar de Tiwawan, un collectif regroupant des mouvements citoyens, euh, donc euh, demande au procureur de Thiès de trouver les coupables et réclame une meilleure prise en charge des malades dans les hôpitaux. C'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à ce rétro flash. Je vous l'annonçais dans les le réseau pour la protection euh, des terres du Wallon en collaboration avec le mouvement Frappe France Dégage euh, dénonce une tentative de spoliation euh, d'une assiette foncière de 1700 hectares dans la commune de Manne par le projet Swami Agri et également la société Sénékindia. Plusieurs villages sont impactés. La population compte engager la lutte pour la sauvegarde du dit patrimoine. Face à la presse, elle interpelle le chef de l'État, Macky Sall, compte rendu. Une assiette de 1700 hectares fait l'objet d'un litige foncier à Mban. Plusieurs villages de la commune sont impactés. La population prête à tout pour sauvegarder son patrimoine foncier. c'est 1700 hectares. Ils nous ont montré un document pour nous dire qu'on les a offert hectares. Ce qui veut dire aujourd'hui, la piste qui vient de Richard Toll en allant vers euh, tout ça, euh, c'est la limite donc de notre village. Et ils ont également euh, demandé à ce qu'on se limite justement à nos champs. Et ça, c'est pas possible. Nous, on peut pas accepter cela. C'est pas des choses à concevoir. seen machine yi commencé di liggéey ñu ànd ak population bi muy population bu dal bu bëgg jàmm. loolu nag duñ ko nangu tey. Ce qui est clair, c'est que nous n'allons pas accepter cela. On est prêt même à y nos vies. D'ailleurs, nous avons adressé une lettre au préfet et au gouverneur pour qu'ils prennent leurs responsabilités, pour qu'on ait au moins des témoins en cas de, de catastrophe. de d'Umban, Yassine Fall fustige la position du maire avant d'ajouter que le combat contre l'accaparement des terres se fera. du maire est une attitude partisane qui milite en direction de soutenir Sénéguindia. Et en fait, c'est l'attitude aussi de l'État sénégalais qui dit que donner les terres au privé, avec des collectifs qui se créent dans les villages. Dans chaque village, c'est la première fois que toute la commune est mobilisée et que même des villages à Richard à Rosso, à Kermadike, à Guidakar, sont en train de se joindre. Donc le département de Dagana a commencé là et maintenant nous avons nos partenaires du FRAP, nous allons voir nos partenaires de Yanama, nous allons voir Plusieurs régions sont approvisionnées en eau potable par le lac de guerre, euh, d'où l'appel lancé à l'endroit du chef de l'État Macky Appel solennel au président de la République et au, au directeur général du lac de guerre de sommer la société Sénégal parce que la société Sénégal son intérêt n'est rien d'autre que d'accaparer illégalement les terres de, de, Mban, mais également d'accaparer illégalement également le lac de guerre. C'est ça Et que c'est le lac de guerre qui approvisionne en eau potable tout, presque tout le Sénégal. Le mouvement Frappe France dégage montre toute sa disponibilité dans cette lutte et appelle à la résistance pour la lutte contre l'accaparement des terres au Sénégal. Suite au décès des 11 bébés au service de néonatologie euh, de l'hôpital Mam Abdul Azizi Dabar de Tivaouane, un collectif regroupant euh, des mouvements citoyens s'est formé pour euh, dire stop à ces genres d'incidents. D'ailleurs, le collectif demande au procureur de la région de de trouver les coupables. Suivons les explications de Chertidian Gaïch. Il est le coordonnateur du mouvement Frappe France Dégage au niveau de Tivaouane. Conséquemment, nous avons regroupé tous les mouvements citoyens, mais aussi des partis politiques qui se retrouvent au niveau de Tuaon pour venir se greffer dans le collectif national dénommé Patients en danger. Pourquoi Patients en danger Parce qu'aujourd'hui, on trouve nécessaire que par rapport à un souci qui est d'ordre national, nous devons nous apporter des solutions dor donc national. Pour cela, nous avons eu des entretiens, nous avons tenu des rencontres entre mouvements, mais aussi au niveau euh, national, ici à Dakar même, avec des organisations euh, de défense des droits de l'homme, appuyées pour que cela soit, cela présente une différence par rapport au combat qu'on a eu à mener ultérie, ultérieurement et notamment dans le secteur de la santé. L'appel que nous lançons aujourd'hui, c'est un appel à la manifestation. Pour que nous disions tous ensemble, avec force et rigueur, stop à ces, euh, euh à ces, à ces, à ces, à ces désagréments. Stop à cette situation qu'est en train de vivre tous nos hôpitaux au niveau national. Halte et que ça ne se reproduise plus dans nos hôpitaux. Merci à vous. Il y aura plus que assez de moutons dans le marché cette année, euh, plus que l'année dernière. Ces assurances sont du ministre de l'élevage et des productions animales euh, qui a fait ces déclarations. Donc, lors, à l'occasion de la cérémonie officielle de la célébration euh, du, euh, de la journée mondiale du lait, Ali Saleh Job en a profité pour euh, justement revenir sur le gap par rapport aux besoins de ce produit dans le pays. Il appelle ainsi les acteurs du secteur à une franche avec le gouvernement. Le constat aujourd'hui, c'est que nous avons une production laitière qui tourne autour de 270 millions de litres par an pour des besoins estimés à 700 de litres. Le gap, tout naturellement, comme vous le dites, est, est, est, est couvert en fait par nos importations presque à hauteur de 87% de les en poudre. Le Sénégal est un pays ouvert à la concurrence mondiale. Des pays, des productions des pays de l'Europe et autres viennent effectivement concurrencer naturellement nos produits. Donc, il nous appartient maintenant à mettre en place des stratégies pour aller dans le sens, effectivement, de résorber année après année ce En quoi faisant En misant surtout d'abord sur les organisations. faire en sorte que les organisations, notamment les femmes, puissent avoir la capacité à produire plus et mieux, justement, cette denrée stratégique. L'État du Sénégal améliore les conditions d'élevage en investissant sur, euh, disons, euh, les forages pour permettre à notre cheptel d'avoir de l'eau. Mais également, en mettant un accent particulier sur les cultures fourragères pour que l'alimentation du bétail soit assurée. Et la journée mondiale du lait que nous célébrons aujourd'hui est pour nous l'occasion d'échanger avec les acteurs pour faire le bilan de ce que nous avons fait, de ce, ce ils vont faire et de voir chacun ensemble, nous, nous tous ensemble, qu'est-ce qu'on doit faire en plus pour essayer de conquérir en tout cas ce marché-là qui est là. et qui mérite attention de la part de l'État, mais également de la part des acteurs. L'origine de cette mortalité, cette mortalité a essentiellement, principalement affecté les brebis et les petits, pas les mâles. Donc ça n'a aucun rapport avec la tabaski. La tabaski, elle est en train d'être préparée depuis l'année dernière. Les opérateurs sénégalais sont au top. Je viens de visiter leur exploitation. Ils sont au top pour fournir à l'ensemble des Sénégalais les quantités de moutons qu'ils voudront. Je crois que ça, ce n'est pas une préoccupation. Encore une fois, je voudrais que ça soit dit une bonne fois pour, pour toutes. Les moutons seront là, plus que d'ailleurs l'année dernière. depuis la plateforme Mbaye Sawar qui initie une foire internationale des produits africains, l'objectif est de permettre aux pays africains de faire des échanges commerciaux euh, pour booster ainsi l'économie, mais également euh, faire face à des éventuelles crises alimentaires euh, pour justement la FIPA qui a vu la participation de plusieurs pays de la sous-région à cette troisième édition. D'ailleurs, le COSEC a profité financier euh, pour octroyer euh, plus de 18 stands aux opérateurs économiques sénégalais pour promouvoir les PME. Euh, par contre, à certains exposants trouvés sur place trouvent le lieu très enclavé. Compte rendu de Alun Badaradiak, Léa Niafona. Parmi les exposants étrangers, nous avons Karina. Karina qui nous vient de la Tunisie et qui vient exposer des produits cosmétiques bio. Selon elle, la clientèle se fait encore rare, mais elle garde espoir. Donc c'est le quatrième jour, c'est un peu calme, mais Inch'Allah, ça va bouger avec les publicités. Euh, non, non, non, non, pas encore. Mais le seul inconvénient, c'est qu'on a mis derrière le grand bâtiment. Il a tout euh, caché. Voilà, bon, pour, venir, pour venir, les clients, ils cherchent. Ah, c'est ici, d'accord. Là, sinon, on a les djellabas en promotion, 100% tunisien, les parfums, vous avez essayé, vous avez aimé. Les shampoings à base d'argile, 100% bio aussi, ils sont euh, en promotion. Achetez un à francs, le deuxième est gratuit. À l'image de la Tunisie, plusieurs autres pays africains sont représentés. Le but est de booster l'économie sénégalaise, nous dit la commissaire générale de la Foire internationale des produits africains. Euh, c'est le même mot qui revient. L'Afrique doit Euh, l'Afrique doit travailler en synergie. Donc cette foire euh, va nous permettre non seulement de faire des échanges euh, intra-africains, mais aussi ça va nous permettre de, de nouer des partenaires nous en tant qu'Africains, j'ai l'habitude de le dire. Donc cette foire regroupe l'Afrique en miniature parce que comme vous le voyez comme ça, il y a beaucoup de pays qui sont présents. le Madagascar, le Maroc, la Côte d'Ivoire qui est le pays invité d'honneur. le Bénin, la Gambie, sont venus en masse. Même les Maliens qui sont en période de crise, ils Pour sa part, le Conseil sénégalais des chargeurs a mis à la disposition d'opérateurs économiques des stands. Une façon pour le de promouvoir davantage la petite et moyenne entreprise. Confondu, toutes régions confondues, parce que les critères de sélection, c'est juste d'être formel, à savoir avoir le le registre de commerce, la carte commerçant, la carte import-export, la carte d'artisan et, et euh, l'autorisation FRA à toutes ces fins pour ceux qui évoluent dans le secteur de l'agroalimentaire. Nous avons 38 exposants qui sont entièrement pris en charge par le COSEC. donc euh, répartis sur 18 euh, stands. L'Afrique importe la plupart de ses produits. C'est pourquoi cette foire est plus que jamais capitale pour les initiateurs, qui comptent d'ailleurs sur ces échanges commerciaux rendre l'Afrique économiquement indépendante. Une note de culture, nous allons à la découverte de deux artistes plasticiens, euh, tous deux amoureux de la peinture. Il s'agit de Tiane Laifal euh, qui a euh, donc procédé à son premier vernissage individuel où elle aborde également la question de l'éducation euh, des enfants, notamment des enfants talibés et le bien-être des, le bien des femmes et également de euh, Masséar de son, euh, de son nom d'artiste Massingo, euh, qui a fait euh, son exposition en offre de, à ciel ouvert à Nyaritali dans le cadre de la Biennale de Dakar euh, pour interpeller les citoyens sur les mauvaises paroles qui peuvent susciter la violence. Ils nous ont gratifié de très belles œuvres d'art Voyons tout cela avec euh, Imam Cham et Léa Niafona. Moi, j'ai choisi la peinture. Et avec la peinture, je me suis rendu compte que je pouvais m'exprimer. Mais la peinture, je l'aime beaucoup et, et, je me vois. Et je pense que c'est bon, facile pour moi de, de véhiculer des messages euh, par rapport à cette euh, médium. Tous deux utilisent la peinture comme moyen d'expression Si l'une s'intéresse à la petite enfance et à la mère, le fond, je vois des images et ces images-là, je les exploite. Et quand je les exploite, je me rends compte que c'est des enfants que je fais. C'est des talibés surtout que je fais. Et comme j'aime l'éducation, j'aime j'aime la, la, la, la bonne éducation surtout. Et à mon sens, je voudrais que tous les enfants aient reçoivent des, des, une bonne éducation. Et à chaque fois, ça me, ça me rend vers ça. On amène la femme au foyer, on la couvre, on la couvre, on la confie à quelqu'un. Ce quelqu'un a le devoir de veiller à son épanouissement, a le droit, devoir de veiller à son bien-être. Et quand on veille à une femme, on veille à, tout un, à toute la société. L'autre, dans Exposition Off dans le cadre de la biennale, a choisi d'alerter sur les dangers d'utilisation de certains mots qui peuvent provoquer la violence. Le thème de mon exposition, le thème c'est mot tant mot. Le mot M-O-T, un mot M-A-U-X. Donc, ce que je fustige, c'est les mots qui, qui suscitent les mots, les mots qui suscitent la violence, Et les mots qui suscitent euh, toute forme de, de, de, de nuisance. Euh, C'est pour cela que j'ai pris ce thème pour développer euh, euh, le, le, manque de respect qui existe maintenant, euh, que l'on voit toujours à travers les réseaux sociaux. Et on dirait que c'est général, quoi. C'est général. Nos interlocuteurs s'estiment heureux de voir les Sénégalais s'intéresser à leur art. Toutes les couches sont venues à l'expo. des gens qui ne se sont jamais intéressés à l'art sont venus. Et je pense qu'à partir de ce moment, ils vont plus s'intéresser à ça. C'est un peu atteint parce que les gens viennent discuter avec moi et puis me demander, euh, me poser des questions par rapport euh, au thème, par rapport à mes œuvres. Et je pense que ça, ça aussi, c'est un pas euh, vers l'avant. Parce que nous, euh, notre rôle, c'est de participer et de, de, de, de faire de sorte que euh, de, montrer, de, de, poser une pierre à l'édification de l'art ici au Sénégal. Les tableaux ne s'achètent pas comme voulu au Sénégal, mais les artistes rencontrés gardent espoir. C'est la fin de ce rétro flash. Merci de nous avoir suivis. Suivez toujours les programmes de la Tauri TV. Excellent week à toutes et à tous.